Toch maa ngi lay ziar. waaw a ngi lay delloo ziar di bëgg bu baax a baax. lan moo waral teewaay bi université. waaw mais tey Sénégal la ñu war a wër xool fu mu ne jóge nañ Kër Massar dem ca Amagan dëkk ba Sénégal war a wër xool fu mu ne. ñu université. instant yi ah ñoo nañ université am na lu ñu a xam nañ am na ñu nekk Medina am na ñu nekk Palais am na ñu nekk nekk Kër Massar Sénégal daal mu ngi noonu. mais euh, depuis 1960 avant suñu papa ak suñu yaay di juddu Coupe d'Afrique mu su fee ñëw tey la nouvelle génération ngi fi coupe bi tey ban satisfaction nga am. ñun ñu ko fekkee dañuy sant yàlla bu baax ñun ñu ko fekkee dañuy sant yàlla bu baax lii ñi ko fekkoon 1960 ñu fi nekk ba léegi ñëpp a kontaan tey xam naa ni. ñi génnoon àdduna sax ñëw nañ jibile après dellu yal nañu yàlla defal ndam ndam lii yal nañ ko ñig ñigéen maanaam yal nañ koy gañe di ko gañewaat di ko gañewaat ay année parce que alxuraan lii neex na mais ñu gis manko bi nga xamante ni dafa am ci yéen jeune talent yi les comédiens les acteurs ñëpp manko doon benn ah, boo ciy déggante ko mooy Lipot mu ni ma mi ngi Cameroun mais dafa mel ni Sénégal yëpp la teewal yow amal sutura amal sutura maa maa ko tey. waaw eh, wax la ci daal seytaane yi. waaw eh, dañ bàyyi lii dañ bàyyi lii mànkoo wuñ wala jàppal ñii mànkoo wuñ mais acteurs yi ñoo mànkoo ñii acteurs yi mànkoo wuñ métiers yi ñoo mànkoo ñii mànkoo ñii mànkoo eh. ma daanoo ñoom ñëpp dañuy daanu kon da nga daanu dama daanu monsieur yow baaxoo lu la daane lu la doole daa daanu juga yow xam nga rek émotion la émotion tey dama ne woon Sénégal bu gagné air plus 3 laa jóge daanu mais dama xoolee aile bu dama xaw a garaaw moo dama yéeg fii daanu. mais toj à grand théâtre wala au grand théâtre xaar. incha allahu rabi parce que ñun ay doomu réew mi lañ te waaw ñu ko fi def ñëpp suñ jaar rek lañ jaar dañuy topp seen tànk ñoom topp seen ginnaaw bu jotee rek incha dañ koy def. mais relève bi nga xamante ñoo fi nekk am nga ci ñoom yaakaar. bu baax a baax a baax parce que ñëpp am talent Sénégal moom dëkk humour la même ñi nga boo demee sa kër rek nga neex tey boo seetaanee vidéo yi xam Sénégal ñëpp ay comédien lañ du ñii rek ay comédien yi ñëpp a neex kon mënuñoo ñàkk am ci ñoom yaakaar parce que ay jàmbaar lañ ay jógkat. man booy bii mënuma si ñoom dara. kii damay yàlla. damay yàlla yow. di nga gis la war lekk bu lekk. di nga mën a daanu. la mën a daal ba ñuy dugg waaw latéralement la duggee dañ ko kii xale ci porte bi lu tax dugg latéral na yàlla xale ci porte bi dégg naa mayo dem nañ Chine dem nañ Dubaï pour rek na yàlla amul mayo war na ñu jël sama benn tailleur moo ko mujj yokku jël ñaari mayo ñaari mayo am nañ étoile rula mayo am nañ étoile étoile fan lay ah. bu dee li ma bëgg rek sama étoile man chaque jour su ma étoile su ma solul maillot maa ngi étoile. mais lan ngay wax Queen Biz. fii laa koy def lan ngay wax Queen Biz. ah kooku kooku kooku ñu baal barke yàlla. Queen baal ñu. billaahi danoo toppoon suñu bu ñaaw rek. am na ñu wax suñu xol. dem so li gars yi naan nañ tàppe xol yi. barke yàlla depuis ñu qualifié de finale ñoo ko commencé ma ne ren dañoo tàppe xol yi. parce que Sénégal bu ñu demee ba naan Queen Biz baal ñu ak. waaw Aliou Cissé baal ñu ak. waaw Saliou Cissé dégg loolu lépp baal Cheikhou Kouyaté dégg noonu nag Cheikhou Kouyaté borom ñaari jabar yi borom ñaari jabar yi ñëpp ñu baal leen ak mais yi ngay Cheikhou Kouyaté daa polyvalent polygame billahi ay dégg ba dégg ba la quoi daa polyvalent polygame dafa polyvalent <laughs> ba léegi nga daan yow léegi nga daan <laughs> yow léegi nga fi daan Cheikhou Kouyaté uh-huh. dafa polyvalent polygame ay maçon mais da doon poli quoi. tu comprends waaw yee. Cheikh Kouyaté sa dem. alors que ko c'est pas donné à n'importe qui nga am ñaari jabar. waaw di kii di kii ba pare def ma. di kii di kii ñoo ci match bi di kii di kii kii wër la. mais yàlla baax na dañuy dañuy dañuy def dañuy jox mention spéciale Aliou Cissé dégg na lu nekk. yaa ngi may gaañ yaa ngi may gaañ waaw baal ma te te nit nit moom loo xaarul du la fekk si. waaw dama la wax rek nit nit loo xaarul du la fekk si te Aliou Cissé. yàlla mun naa ne xorom la ko fay barke yàlla dégg na lu nekk man wax naa ko lu nekk du man kese wax nañ ko lu nekk waaye bu doon déglu na leen heure bi du ko àgg mention spéciale Aliou. gis Aliou Cissé mais di ko ñaanal rek dégg na lu nekk quoi. mais xolam la ko yàlla fay. walaay sonn na ci équipe bi. bilaay walaay daw na ba sonn. mais tey sénégalais yëpp man ko rawatina yenn artistes yi yenn comédiens yi les chanteurs ñëpp daal di organiser wu ànd ki nga xamante ni moo di Aliou Cissé. waaw mais c'est bien normal parce que nous sommes des sénégalais nous tous ay sénégalais fekk papa yi nekk sénégalais kon c'est bien normal ñu Sénégal rek suñu bopp tilima ci suñu yére tilima ci suñu dàll c'est bien normal te lii fierté la ñun ñoo 2022 kon ñun ñoo nekk ñi ngi nettali Coupe d'Afrique dafa neex ci xol mais ngeen ñëw ikaat fekk fi ay ndaw yoo xamante ni ñu déterminé lañ ñu bëgg seen gox ñoo xamante ni dañuy jàng tey ban message nga leen lancé jëm ko ci ñoom di ñaanal dama leen di ñaanal li ñuy séntu fii yàlla defal leen ko wallahi azim au message ma leen sànni dama leen di ñaanal parce que ku ne dem naa chambre bi xool naa chambre gis naa situation ñuy dund wallaay yomb dama ne mu seen chance sama yaram di jàng ay xale lañ di jàng te ñu ci bëree ngi rêvé doon acteur wala mel ni yow wala mel ni Biggi wala mel ni Kimi wa kii tey lan nga leen di jox ban message. mais après moom foo mënti nekk rek que muy ci acting bi que muy menuisier bi que muy maçon bi que muy bi ak foo mënti nekk amal détermination ci li ngay def gëm ni fi nga jëm nga góorgóorlu xam ni un jour viendra di nga fa yegg góorgóorlu maye def lépp loo war a def fayet reyante. nag fenn yombul muy acting beeg maçon rek ku la ne fenn yomb na barki alxuraan da lay nax fenn yombul voilà un mot pour les étudiants. waaye étudiants yi man sama mbokk étudiants yi sax laay wax parce que fii laa déjà fii laay jàngee di leen di di leen encouragé parce que situation bi c'est vrai que ni métti na waaw di encouragé di sama bopp waaw yàlla bari ñu sutur <laughs> en fait situation bi métti na ñun ñëpp ñu ngi koy gis yaa gën a xam dëkkuwaay yi tu vois voilà mooy loolu mais voilà quoi ñu naan ñu naan euh, bienvenue dans l'affaire te kenn ñoragul kon cela veut dire que mën nañoo si mën nañoo mën nañoo mën nañoo euh, mën nañ fi dund quoi mën nañ fi nekk tekki fii voilà tu vois ba génn am suñu poste yu normal voilà tu lépp mën na nekk. c'est possible un mot pour les étudiants. mais mais du ma wax ci étudiants yi. dama wax ci benn affaire rek. Ah. ñu ngi ci problème li li li gën a tax voilà grève gi métti na lool waaw euh, nañu nañu nañu nañu état bi jàppale ndax ñun bëgg nañ jàng quoi lu mu tuuti tuuti non dama jox lu mu tuuti tuuti dañuy def bac te bu ñu def bac ñun ñëpp a koy defandoo école privée beeg école publique beeg ñëpp a koy defandoo merci wax nga lu am solo waaw léegi bu ñu mënee jàppale lijjanti suñu professeurs yi ñu mun ñoo jàngal ñun li ñu soxla moo ñu gënal quoi parce que weer at at at bi léegi mu jeex jël nii nii. Ah. élèves yëpp lay may bac. waaw léegi <laughs> kon ñu wax tey si coupe bi léegi <laughs> léegi barkaal dama kontaan hmm. sam pap gisuma fu mu seetaanee match bi de waaye xam naa ni bëgg na billaahi dama ko yëg dama ko yëg oh, oh. barki alxuraan billaahi wallaahi war na yàlla kontaan naa kontaan naa gars daal nañ leen wax sa kaw sa kanam di leen ñaan yàlla di ñaan yàlla affaire bi jig ñu waaw incha allah Égypte dañ ko nar a dóor aller retour looloo nar a gën a saf xam nga ni pression woon na dégg mais waa Égypte ay imbécile eh xoolal na nga ñëw kii lañ doon yëg bu ñu jëlee coupe yeneen baaxuñu ay Égypte ay Cameroun ay Algérie ndeke def ak année lii lañ daan yëg ndeke wax déggoo ma man yeneen dëkk yi chaque année li leen daan dund te duñu ko wax. waaw li ñuy dund nii à l'instant ñoom loolu lañ daan dund. te ñun yëguñu. wallaay dafa neex dafa neex. jaayee jaayee.